bokk yi xarit yi ñuy seetaan à travers Dakar Buzz TV dal leen ak jàmm mbégte la may jural saa su ne jàkkaarloo ak yéen dalal leen ci seen émission bii di tase ni ma koy aajo defee nag naanaan bu ne laay seeti ah fu nekk laay fële tey nag ma ñëw à la rencontre de euh, ñoo xamante ni ci li ñuy yëngu aussi euh, ràññee nañ leen ci lool ñu doon ay simbkat mais laata ñuy gën a continuer leen di bàyyi rek ñu présenté wu yéen internet yi ñuy seetaan à travers Dakar Buzz Ndiaye nuyu naa la. ah soxna Rose ñu ngi lay siyaare ah di siyaare waa Dakar Buzz yéen nga xam ni site internet la boo xamante ni yàllaa dogal yéen a fi nekk loolu la yàlla dogal ah Dakar Buzz nag du jël ku ne du jël n'importe qui tay la tey tey ngeen dégg tey ngeen di gis waaw ñu leen ziar di leen bëggee di jaajëfal internet yëpp ah, di bëggee waa Dakar Buzz bu baax si opportunité bi ñu am pour wax ak euh, sénégalais ñu mën a am information yi waaw di contentement di bëggee ñëpp di yaakaar internet yi dinañ ci jëlee njëriñ yu bari ak ay connaissance ah. Mhm. waaw kontaan si. kookoy Lamine Naar. man maay Pape na ngeen ko gisee Ndiaye Rambo ak Pape Naar laa dalal tey ci biir émission tase ñu daal di fas yéene waxtaanee li nga xamante ni mooy Simba di suñu culture di suñu aada di suñu cosaan euh, depuis tout temps ñu koy bëggee lu lool lool lool moom euh, li nga xamante ni mooy Simb euh, laata dara bëggoon nañ xam Ndiaye cosaanu Simb. ok cosaanu simb nag ñun liñ ci liñ ci xam euh, muy jóge ci cubbalo cubbalo yi am na tamit ñu naan ci waalo waalo yi la jóge mais ñun daal li nga xamante ni wóor nañu ñun parce que ñun ay ndaw lan papa suñu maam Père Ngom moo ko gën a fësal mu ñëw ci ñoom Lamine Ndiaye ñoom Setifa ah, ak ñoom Sadio Ndiaye loolu daal xam nañ ni xam nañ ko ci ndax yomboon na bi ngeen ni door ci simb non yombul parce que simb dafa nekk benn acteur boo xam ne ku koy def au début que sa famille yi duñ ko accepté maanaam duñ ko bëgg dañuy yaakaar ne affaire violence la wala affaire banditisme la te alors que nekkul loolu culture la rek suñ cosaan comme ni ndëpp amee ak gumbe ak way xam nga way sax am na ñoo xam ni bu njëkk ay géwél ñoo doon way boo dee gerte way say nit say parents duñ ko bëgg boo duñ ko apprécier mais à la fur mesure que nga amaat commencé am teraanga si lay nit ñi commencé di la fekk si mm-hmm. waaw noonu la demee rek bon tout début est surtout si moom moom moo ci gën a metti mm-hmm. parce que nit ñi yaakaar ñu duñ ay nit wala ñun ay beneen xam nga wala ñu leen la demee mm-hmm. waaw neexul woon daal début ba tey ñu bëggoon xam seen diggante ki nga xamante ni mooy euh, Pape Sadio Ndiaye na defe naa kenn du wax simb euh, fii ci Sénégal te doo ko tudd. waaw kooku nag diggante bu doy waar diggante diggante diggante mag ak rak yàlla dogal ñu débuté suñu simb ci ku nuy wax Pape Ndaw léegi dafa laxasaayu xam nga taal dafa laxasaayu doon Baye Fall moom mooy moom moo ñu débuté moo ñu njëkk a jox déguisement mm. mais nag bu ñu melee nen ni ginnaaw yàlla Sadio Ndiaye la ak ku ñuy wax Amthio waaw ñoom daal ñoo jàpp ci combat ba tey jii sa Ndiaye moom beneen affaire la ci ñun parce que mu ngi ñuy soutenir mu ngi jàppale mu ngi teg ci yoon malgré mu ngi Europe. Mm-hmm. mais chaque fois mu ngi yëkkati dooleem di ñu jox naan ñu def leen lii def leen nii waxee leen nii defee leen nii. Mm-hmm. moom ba léegi bàyyiwuñu. Mm-hmm. am na solo lool defe naa kenn du tudd Simb fii ci Sénégal en tout cas te tuddoo ko def na fi jaloore bu ne ba tey ah, ñu bëgg waxtaanee li nga xamante ni mooy euh, Simb démb nax bu ñu comparé Simb tey a Simb démb dañuy gis dafa ute ndax bu njëkk Simb dañ ci daan gis sax lu mel ni càkkaaba wala Simb bi buy waaj jot sabar yi daal di dugg si koñ bi di tëgg di di yëgal nit ñi ni Simb mu ngi waaj am mais mu am yu sew yu bëri yoo xamante ni rek ci Simb tey bi boo xoolee day commencé di dem wala daanaka amatu ci. waaw loolu loolu nag ba léegi na muy am parce que cakaaba ba léegi ba léegi muy am parce que Ndiarame saa bi Tëngéej day def publicité cakaaba ñëpp xam nañ ko. Hmm. ba léegi nii cakaaba mi ngi am affaire mi ngi am démb ak tey mooy différence bi mooy démb amuloon baas dañoon ñëw si terrain vide ñu def ay chaise. Hmm. rangale ñëpp dagg bi mu neex. Hmm. mais léegi dañuy bâche. ñaari côté yi ñaari bâche ñaari yëpp pour sécurité ku amul billet doo dugg si biir. léegi dàqe sa amatul léegi léegi sim bu amatul dàqe dañ ko moderniser ba amatul dàqe léegi dañuy bâche ñu am ticket ñëw dagg. Mhm. waaw waaw léegi dañuy bâche ñu am ticket dagg toog seetaan amatul daw amatul yooyu sim bu gën teel a gën a moderniser teel a gën a chair ndax bu yàgg ba bu yee fukki dërëm la woon cent franc léegi am na ñu jaay téeméer mille franc VIP te day fees macha allah waaw. lenn rek moo si nekk si différence bi mooy il faut autorité yi si nekk. nangu ko parce que dañuy may ay ñeneen autorisation te te simb nga may ko autorisation rek ñi si def ñëpp ay presque ay ay GIE ay association ay mbër ay ASC ku ci bëgg fond simbakat moo lay simbal. ak politiciens yi ku ci bëgg mbooloo simbakat moo lay simbal. li ma lay wax bokk nañ ci ñi fal Macky ki ma fal Macky Sall <laughs> waaye ñun bokk nañ ci ñi fal Macky Sall parce que seen meeting yi. dañu daan jël pour pour nit ñi dajaloo ñoom ñu jàllale seen message président Abdoulaye Wade tamit noonu président Abdoulaye Wade moom yàlla dafa dogal moom dafa demoon ba ràññee Ndiaye Rambo même bu ma solul déguisement sax bu ma gisee daf may tàllaloo parce que dem ba sim bu pare ñu moom moom ayam moom wax dëgg yàlla doon ci doon ci gis suñu bopp bu baax a baax a baax a baax. soo nee moom ayam dem ngeen ci gis seen bopp daa mel ni nguuru Macky Sall bi gisoo leen ci seen. non non non sérieusement <laughs> waaw dëgg moom neexul univers nguuru Macky Sall moom gisuñu suñu bopp ci simb parce que déjà soxna si soxna Rose xam nga dafa neex. Mhm. parce que am naa mi toog des na ñeneen ak ñeneen ñoom Malick Sarr ak ñoom Buna des na ñoom Abdou Baye Thiaye des na ñoom Baye Zall mhm. des na ñoom Ousmane Diallo des univers ñoom Jaba staff yu bari na ñoom Pape Samba Ndaw staff yu bari na. ñoo xamante ni ñëpp ginnaaw yàlla ci simb lan lan lan lan lan bootu. te ku ci nekk kii am na benn soxna wala bu amul benn soxna am na ñaari soxna ci ñun amuñu lu dul simb yaakaar lu dul simb. inhibe te te bu dee comme comme ni gars yi ni artistes yi defee ci kii bi Covid 19 mais ñun dañ ko def man vidéo vidéo def naa ko. vidéo yi def naa ko. waaw bëggoon nañ tax laajte ci loolu Covid 19 bi ndax gis ngeen ci seen bopp ndax am na fonds yoo ñoo xamante ni déployé nañ ko pour jàppale ñi nga xamante ni ñooy artistes yi te def naa yéen tamit euh, ci euh, ñooñu ngeen bokk ndax yéen a ngi bay seen waar ci culture bi ndax simb li muy li muy dugal euh, ci économie tamit duñ ko bañ. dinañ gis étranger yu bëri di ñëw ci dëkk bi rien que pour seetaan si simb wala pour ñëw pour gëstu li nga xamante ni mooy culture simb. waa bi. amul benn simkar bu ci gis boppam dañoo jël rek bee ñu nga teg ñu ne boo gis naa ñëpp fecckat yeeg waykat yi ñëpp a ngi kaas mais ñu simkat yi ñu garder suñu dignité toog ñu kenn dégguñ ci dara demuñu ci média yi di grève defuñu dara dañoo toog rek xam nga loolu injustice mënu koo gën a rëy lu dëgg ministre de la culture chargé de mission suñu papa lamin Ndiaye te nekkoon daara kocc nekk si kat théâtre mhm. moom xam na ne si si culture ga ba muy recevoir ñoom pot seen émission boobu ñëpp a ngi koy seetaan nit ki nag boo jiitee da yaatale waaw mais Covid 19 moom boo xam ne jot si dërëm def nañ audience ba ma toog ak vice président assemblée nationale muy Moustapha Diakhaté mi may dégg maire Yeumbeul Nord ba ma ko indilee suñu affaire ne ko si mu dañ koo tere moom gëmu ko sax moom gëmu ko moom vice président leen gisee décision boobu vu que comme ni mu ko Ram Ndiaye waxee rek yéen bokk ngeen si ñi nga xamante ni ñooy jàppale bu baax politiciens yi si seen activité buy bu commencé maanaam élection yi. waaw mooy li ma la wax rek soxna si fi mu toll nii mën na la beddi instant bi mhm. mais bu dara desul lu dul campagne dañ lay woo par force par la force. par force parce que ñun ñoo mën a dajal nit ñi loolu la yàlla dogal ñun boo nu askan bi ñu ci ëpp beddiwuñu parce que simb nag bu ñu waxante dëgg am na ci ñun ñu yàq comme yéen journalistes yi am na ci yéen ñoo xam dañuy yàq woykat yi am na ñoo xam dañuy yàq làmb ji noonu univers extra extra gàmm goo gis rek am na ñuy gàmm ak ñuy ras dem mais ñun dañoo indiwaat simb def niwlu simb niwlu parce que gars yi bu ñu génnee single bees dañ naan new single lii new simb la beneen facette incha allah rabbi beneen facette. te Sénégal yi dinañ ko découvrir incha allah rabi ba tey euh, Pape Nara ñu bëggoon xam ndax jot ngeen toog ki nga xamante ni moo yore wàllu culture muy ministre de la culture. non non ñu jot na toog moom moom. Pape Nara ma xaw ma ko. Devereux non c'est vrai xaw ma ko. billahi barki Serigne Babacar si xaw ma turam xaw ma turam te dama ni la soxna si Sénégal fii kenn mënu fee tudd culture. génn ci simb mënul nekk ci adduna mm-hmm. mu neex ak mu naqari simb ñun ñoo ko moom fii leneen loo jël am na ci yeneen réew mais simb rek la Sénégal moom mm-hmm. ba pare ñun suñ simboolu réew ku ne xam na ni gaynde la kon ñun dañoo war a jox suñu cër mais nag bu ñu joxul suñu cër it ñun du tee ñun dina def li ñu war a def ñun ba fu mu yem rek neex war na la tey ban message ngeen koy lancé ndegam gisoo leen ko boobu ba tey. xam nga ministre de la culture man boo si Youssou Ndour kase laa si ma sa xam kase tey su ma remoon ci mbedd bi tey mënu ma ne kii la chargé de mission bi ma si gis Lamine Ndiaye te grand théâtre la te boobu ñoom ñoo soxla gaynde yi grand prix Maurice Bézard gaynde yi ñu ko ci TFM moo ko doon couvrir diplôme bii fa lañ ko décerné Ndiaye ci lañ bi te Ndiaye bokkul woon mhm. Ndiaye bokkul woon ci affaire bi de mhm. man maa ko récupéré lii photo yaa ngi fi dugal naa ko ci Facebook bi xam la a dañu décorer ko lii mhm. parce que exemple la ci simb mhm. xam nga gan ku def gan presque presque tour du monde ci simb di j j'ai ay spectacle yu rëy mhm. ñi am tour kese lañ décorer ay ñiin saw ah bàyyi saw moom waaw sunu xarit borom Gambia ak ñeneen ñeneen ak Ibou Kane ak ñoom lañ décorer mais gis nga ministre la culture nekk su ni ko suñu la dénkee lépp xool li nga xam ne yow Sénégal ñoo ko moom ba pare nga valoriser ko soog a dem lii ñeneen ñi moom maa lay xamal ñaar tey boo làngaloon fii sii Sidi Diop wala beneen waykat fii ci terrain basket bi Mor fee g ñetti fan premier jour bi dina feese mais deuxième jour bi troisième jour bi day fiasco parce que xam nga nit ñi moom amuñu intérêt di seetaan à chaque jour gam benn live ñetti fan live benn fan lay am grand théâtre mais sama kat boo ko làngaloon fii semaine da koy diw ba mu fees semaine bi yëpp day fees parce que loisir la cinq heures huit heures nga toog defoo dara loo seetaan whatsapp internet mais boo déggee ñu ne simb am na da ngay dañ ko dem seetaani chaque jour muy gën a fees chaque jour muy gën a fees mais kon ñoom nañ dooleel nit ñi te xam ay sénégalais lañ waaw mitim ñu dem bu bëgg làmb da woo sëmbakat mbër yi li fecc ci télé bi yëpp sëmbakat yoo ko moom. ci yéen la ñuy sàccee dama ne na benn mbër gaan taxaw ne lii man maako ko ñi leen di tëggal ñëpp laa la wax si Mbacké lañ doon tëggal ñëpp mën naa leen lim laq jeexalu leen pekaay mbay pekaay si Mbacké la doon tëggal diili bu Siteu aale bu Sa ñëpp ba ci waykat yi sax boo xoolee euh, nouvelle génération bi ñu ñu bëri bu ñu leen xamee. ci ah, simb lañ leen ci simb lañ leen xamee Tarba Mbaye simb kat la. caat caat mhm. day way simb Sidi Samb mhm. Bagan Seck da ko doon tëgg Babacar sekk mhm. muy mbalax nii da doon tëgg simb Ara ak Saloum Seck. mais nag nit loo jaar ba génn ci bàyyi ci. même boo nekkee ci leneen mais nga war ko fàttaliku. nga war ko gëstu diplôme de mérite bi Ndiaye noo ko noo ko dundee décoration bi nga xamante ni. <coughs> waaw décoration bi nag. dëgg yàlla dama cee kontaan ndax Sénégal la jógee. Mm-hmm. te day am solo. Mm-hmm. mais nag dafa fekk ni man avant maa jot diplôme bii nga xam ne Sénégal lan ma ko joxee. Mm-hmm. bitim réew bëri naa fay diplôme. waaw bitim réew yàlla dogal na. am nañ fa bu ne. ndax koo xamante ni danaan organiser festival yoo xam ne day def vingt cinq mille personnes. RFI di ko def direct. waa France 24 jóge ba France ñëw fekk ñu fii Sénégal pour def ak ñun documentaire loolu lu rëy la. xam nga yéen waa média bi tamit naa leen balaame tuuti. parce que neexul mais nag dëgg la mën na am du yéen a tax ma yàq parce que tey yéen ma seet du am na tamit ñoo xamante ni ñu ngi ciy jàpp mais. boo bo maanaam maanaam boo boolee ñëpp jàpp ñu ci dañoo néewal doole simb. Mhm. da gis nit def benn affaire bu ñàkk fulla sax ñu naan mais xool kii affaire simbkat yi muy def maanaam ñu def benn simb affaire bu ñàkk fulla te anyway dama ne la dama ne man fi ma yóbbu simb ci Europe drapeau Sénégal fi ma ko yóbbu ci simb amul benn waykat bu nekk Sénégal bu fa yóbbu maa ko wax maa ko wax. mais aussi bu ñu xoolee euh, simb mën nañ ne lim leen lim leen defal ndax yéen boo leen xoolee euh, lépp loo leen am. Euh, ci teraanga àdduna mën nañ ne simb moo leen ko may à travers voyage yi ngeen di def wante tamit ba ci. changé. Mhm. simb mayaguñu dara bu fekkee dëgg sérieusement parce que man li ma traversé yëpp normalement heure bi waroon na fekk ma yor oto Pape fekk mu yor oto Malick Sarr man anyway groupe bi yëpp ku ci nekk waroon na yor oto parce que man dem naa fu ne nee naa la man États-Unis laa demagul ak Màkka. Mhm. soxna si mais simb. amul guma ci benn maanaam amul amul ma benn njariñ boo xamante ni man sentir naa ne noonu lii man simba ma ko defal à part tukki uniwee mais uniwee tukki kase amul njariñ si soxna si tukki ak dara te man heure may jóge fii damay jël drapeau sénégalais yóbbu ko su ko defee tubaab yi découvrir lan mooy simb comprendre nga may taxaw ci ay festival yoo xamante ni ay jamono Michael Jackson moo fa doon taxaw wala léegi soxna si koo xamante ni dafa joué Angleterre leen reenu Angleterre toog nii di la seetaan ban ban ban artiste moo ko defagum fii neexul mais univers ah musuma gis image yooyu boobu musuma ko gis. Mhm. joué naa reenu Angleterre toog te simb la mais univers média bi gëstuwuñ loolu. gësuwul ba xool ñii kat parcours bi. mu mel ni da nga bëgg wax valeur bi ñu war a jox simb dëgg dafa mel ni sénégalais ci boppam sax ñoo ko njëkkul jox simb. non sénégalais yi jox nañ ko ko. média bi laay wax parce que xam nga lu du tax ma lool. Mm. soxna si man yàlla xam na ni lépp kenn mënu ko wax. man heure xam nga da ngay dégg ñu naan simb dafa dee. dafa fay ah, dafa karan karan mais simb deewul parce que lu dee du dundaat. Capito mhm. benn problème moo ci am te incha allahu rabbi man maa koy relever ndax ñu ñu ngi studio comme fi ma fekk fii fii mooy studio bu la grand Papis Ndiaye jiite ko. ñu fiy def ay son yoo xamante ni incha allah rabi après di ngeen ko jot bu soobee yàlla ñu ngi ñu ngi préparé affaire yoo xamante ni anyway dina gis leneen. ñoom buñ ko consommé wul tubaab ko parce que tubaab bi dañoo bëgg simb pire. te nit ki munoo moom li nga parce que ñun yëpp mënoon nañu bañ bañ fekk mënoon nañu dem Europe moodu moodu ji. capito mënoon nañu dem Europe moodu moodu ji mais defuñu ko dañ ni ñun dañoo bëgg suñu réew comprendre dañuy dem si di liggéey. comprendre nga Sadio Ndiaye toog na toog toog nan toog nan toog nan toog nan Hollande la xaw ma uniwe fàtte naa mu ne ma mu ne ma toogal liggéey ma ko non yàlla tere ma ne ko grand man du ma nekk ci sim bu bi xam nga sambara bi ma njëkk am jëndal ko sama ndey sama baay ci laa ko amee capito ñu jiiñ ma ci viol inuit def ma uniwe ñàkkal ma ci ful léegi man may bàyyi noonu mu sedd noonu loolu mënta nekk mënta nekk maa ngi commencé yéeg sax ba tey ah, ñuy wéyal ni nga ko waxee rek simb ngeen am simb ngeen bëgg simb ngeen bëgg en tout cas def et continuer ko comme métier ba tey ah, ci déguisement yi déguisement yi nu muy demee noo lañ koy tànnee. kan moo koy confectionné ñun ñoo koy defar. am na nag ay maestro comme Marie Sarr kooku moom da defar jabaram yi sax dañ koy defar waaw maam ràbb la def ko affaire am valeur bokkul ak comme yi amul ay temps léegi déguisement si mu bu si gën a. yomb rek bu si gën a yomb rek 40 mille lay jar ak bu ñu nee nga photo yi léegi léegi di nga bu si gën a yomb 40 mille lay jar te léegi ak gan am nañu représentant fu ne si àdduna bi mm-hmm. parce que boo xoolee léegi su mbëkkat ñooy jouer Women Festival mm-hmm. bu Hollande ñooy jouer Brighton ñooy jouer fépp mm-hmm. ñii ñii ñi ngi ñii ñu ngi Suisse dama ne simb day dem ba léegi bale laa bale bale xam nga li nga koy dégg bëreetul xam nga bale fi nekkoon dañuy dem ba groupe <coughs> bale bu bëgg dox di nga jël benn sëmmkat dugal ko ci biir ndax déguisement rek bul fecc su solool déguisement rek nga taxaw fii <coughs> pardon fii day fees dell sëmmkat mm-hmm. lu muy mën a mobiliser si nit drainer si ay nit artistes yi sax ñu ko drainer boo xoolee orchestre day nekk trente cinq nit na trente cinq gaynde ga taxaw ci palaato war a danse beneen affaire la mais soirée waale bi xoolal gën a mu neexee woon sargal jigéen ba gars yi dugg see seetaan ngeen vidéo yi mm-hmm. extraordinaire mm-hmm. lu rafet lu doy waar te jéewu ñu fa sax trois minutes mm-hmm. ñu ko remercier au au gën passage waaw yàlla biddéewam gën a fenk ca kaw xam nga ñun dañu bëgg képp kuy dool aar bi rek ñu lay ñaanal ak ñoom salaam Diallo donc père Youssou Ndour Ndiaye gëlu def na ko ci aar. ñu nekk artistes yoo xamante ne ñoom tamit tout le temps dañuy valoriser simb ba tey njaay ñu bëggoon xam sa collaboration ak Wally ndax euh, am na looy waajal te gis nañ ni moom nga ci war a àndal tamit. ok maa ngi waajal maa ngi waajal incha allah rabi grand théâtre ah. Wally sama rakk la. defe naa ne kooku mën naa ci bañ a xuus. parce que sama rakk la kooku jeex na kooku moom maanaam ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. Mm-hmm. sama rakk la. xam ki ma doon man tamit ma xam ki mu doon waaye nag instant bii dama jël sama yoon boo xamante ni simb laa bëgg a teg devant. li tax nga yóbbu simb grand théâtre parce que simb foofu la toll simb léegi dépassé na ay mbedd man simb bi ma bëgg li ma bëgg pour a promouvoir li ma bëgg a def grand théâtre laa koy wane bu soobee yàlla su ko defee nag sénégalais xam ni ñoom yor na culture boo xamante ni tubaab yi war leen ko gën a bëgg. ñëwee moo tax ñu ngi préparé grand théâtre dama ni Sénégal eh xaar leen man Ndiaye Rambo maa ko wax ma ni dinaa def grand théâtre lu ko lu ko artiste mës a def yàlla xam na ko barki Serigne Babacar Sy. Sim biir grand théâtre dina doy waar de boobu Sim moom amul dàqe. <coughs> non non non même même suñu simb fii sax simb yi nii simb Tëngéej Medina ñëwee. bàyyi ngeen dàqe bi ndax léegi andi ngeen bâche. ñun naka jekk duñu dàqe. Mhm. man man man en personne bëgguma ay fet dàqee parce que maa ngi xalaat xale xale yi dañ maa bëgg yàlla kon sama classe yi mën na ñëw na man dàqe wee taxoon man dagal non na taqalaate xewi na asalaamaaleykum non non non yooyu yëpp xewi na ci ñun hmm. loolu dindi ñu ko hmm. léegi simbu niwlug la son yi lumière la ñëpp ñëw sañse ba mel ni tàngal mant hmm. sañse ba mel ni tàngal mant parce que man déjà simbu yi may simbu ci mbedd yi rek boo sañsewul doo dugg pour ah. merci pour mu jeex boo da ngay sol lu silwise lu set mën a ñëw dugg ci biir simb si ñëw ñu bégal la ci ful la grand théâtre tamit incha allah rabi buñ ci tollee di ngeen ko yëg incha allah dinañ def conférence de presse. Mhm. dinañ woo presse yëpp. ñi nga xam ni santi nañ simb parce que simb amul benn benn benn presse bu nekk fii ci réew mi te xam ko. Mhm. ñëpp a foowee simb. Mhm. kon nan dooleel simb encore une fois ni nga def yow. ñeneen def ko ñeneen def ko non na ko na ko ñëpp def su ko defee ñu xam ni simb ñun ñoo ko moom te ñun xam nga am nañ talent te ñun dañ cee war a teral suñu ndey dañ cee war a teral suñu xam nga am na amoon nañ yeneen métier mais defatuñ ko defatuñ ko simb la ñuy def ku ñuy jàppale nag ci biir simb la ñuy jàppale mais boo bàyyi ba ñuy dee nga ñuy jàppale na yàqu nga ko tey Pape noo gisee euh, mystique ci biir simb ndax dañuy faral di wax euh, euh, dafa bari ci aar bi mais li ñuy gis mu gën a fës ci làmb ji la ndax ñoom dañuy taxaw di sottee ko mais tamit ci biir simb mystique lu am la. non ñun moom suñu diggement rek mystique la. simbkat mu solu rek mu taxaw mystique la loo bu yàqkat doo fa taxaw ku bon doo fa taxaw keneen ak keneen doo fa taxaw même boo dee kuñ jëli jëli sax foofu foofu foofu dafa taxaw parce que secret bi moom ci biir la fi ñuy soloo la. loolu mais ba ci solo yi dañuy gis ay petaaw ay seetu. ay kërën kërën non yooyu la yooyu dafa bëri bagage. yooyu moom ay bagage la dafa mel ni caméraman bi toog mu jël ñu après yeneen yi keccax yeeg jimbo yi moom mooy wéet toog ak ordinateur am defar ko xam nga loolu moom ci bopp bi la si mu moom mbedd bi moom mooy lu fës mais li nekk ci biir moom loolu mooy parce que xam nga gisoo ko nit nekk ci biir toog rek nga war a jël lépp non mënul nekk. Mhm. am na am na yoo xam ne dañ ko dëxañ foofu. Mhm. parce que loolu moo yéem nit ñi. Mhm. loolu mooy xam nga nit ñi la moo leen yéem. naka lañ def ba organiser lépp bañ takk ko ba affaire yi ñëw rek nga mën koo xool bëgg cee foto. parce que su ma kat boo xoolee la nga a Njaay xam na lu ma ko Njaay laa bëgg foto Njaay bu taxaw yow yow mii bugga fa taw da ngay daw mais loolu la. Mhm. parce que loolu moo jafe. xam nga tey mu nga woo Youssou Ndour ngeen taxaw ngeen fa taw loolu du dara woo artiste mais si mbukat bu nga fa moom beneen facette la dafa am ay mbóot yi si nekk te yooyu ñun ñoo ko moom. li ñuy ñaan mooy gars yi bàyyiwaat xel waxtaan ak gars yi te xam ne seen doom lañ ñu valoriser affaire yi mu nekkaat ci beneen level mhm. waaw. en tout cas tourisme yi ñun ñoo fi mën a dugal ah. mhm. <laughs> gis nga Sénégal ni ni mu manqué affaire tourisme yooyu gis nga feebar yi ni mu bëree parce que xam nga lu war gis nga dee tamit booy yi dañuy dem géej di dee rek parce que simba amatul. gis nga moo doon passe xale yi foofu lañ doon passé seen temps gis nga feebar yi parce que parce que kër goo dem léegi amatul ndaal ndaal ndaal ci lañ daan tànk di naan daanoo feebar ay ay laaxu laaxu Dakar comprendre yooyu yëpp léegi dañ ko bëgg a jël teg nii. dindi ay ceeb ak ay ma yu ma xamul moo tax nit ñi di feebar rek booy yi di dem géej di dee rek parce que sim simb lañ jël boo ko def ne parce que xale yëpp ci simb lañ doon jël passe temps mm. kon bu am simb benn xale du bouger mm-hmm. il faut ñu jàppale ñu mm. ñun moom ñun ñoo def lu ñu war bu ñu jàppale non dinañ àgg fu ñu jëm bu ñu jàppalewul tamit dinañ àgg fu ñu jëm mais Ndiaye tey boo xoolee bu ñu nee simb démb ne suñu xel demee suñu papa Sadio Ndiaye bu ñu nee simb tey tamit suñu xel dem ci yow nga nekk ci référence mën ci li ngay def macha allah comme ni ñu ko waxee rek sànq diplôme bii ñu la jox sax bañ la koy jox keroog nekk ko fu woon Pape Naar moo ko moo la ko récupéré tey boo xoolee sa jaar-jaar fi nga commencé ba fi nga egg si simb ni nga ko bëggee woon début bi métti ba tey nga dem fi fu ne ci àddina nag lépp nax simb ak tey fi nga bëgg yóbbu simb yóbbu ko grand théâtre man yëg-yëg ngay am. waaw xam nga xam nga xam nga tamit gis nga doomu aadama looy def mm. parce que Wally Seck fi mu àgg nii. gëm-gëm la Youssou Ndour fu mu àgg gëm-gëm la Sidi Diop fu mu àgg gëm-gëm la Pape Diouf noonu ñoom ñëpp ah fi ñu àgg gëm-gëm moo leen fa tax a àgg te gënuñu maa gëm man et puis ñoom gënuñu maa nekk sénégalais pourquoi ñu mën a tëgg grand théâtre dégare ne foofu dajale foofu te man mënuma tëgg grand théâtre damay tëgg grand théâtre te nan ma xaar damay tëgg grand théâtre incha rek parce que nouveau talent yi ngay gis booy yi ngay gis nii yëpp ñuy way ñoom ñëpp ku ci nekk sama simb la jógee ñoom ñëpp nag laa wax kaw ba suuf ñoom ñëpp sama simba lañ doon taxaw di way pour ñu xam leen comprendre nga mais ñoom ñëpp nag fay ñu naar bi xoromam mennum abu cubaloo daal laa ci gis mu way ci simb waale tamit way na simbu abu cubaloo Youssou Ndour ku bëgg simbala la Youssou Ndour ku bëgg parce que am na benn anniversaire lu Salam Diallo buñ doon buñ doon def après dinaa la sanni vidéo yi anyway Youssou Ndour parti bi mburu waroon dugg da ko bàyyi ñëw dugg sama parti bi nga xamante ni ci la ma salaam programmé man ak moom ñu def affaire bu nice comprendre nga ba mu ba mu programmé woon pour yóbbu ko Bercy parce que xam na culture bi capito ñeneen ñi pourquoi duñ def loolu. maanaam artiste euh, yi nga xamante ne ñoo bokk ci nouvelle génération bi ñoo woy simba laa. dana wa mais war a simba parce que simba leen def li ñu doon mais ku ci woyal simba sa problème la bisa ngi ci ñëw bisa ngi ñëw di nga bëgg a woy simba. parce que man ku ci woyul simb du ma du ma fecc sa clip man ñaata. clip lañ waaw ñi ci ëpp si ñoom sax simb moo tax ñu xam leen nag. Ah, eh, waaw ba beneen si simb yi lañ daan nekk di di di di di di mbapat nag. dëgg fa yàlla waaw kon kay jeex na. koo ci laaj carrière mu ne simb laa commencé di ndongolo ndem si yàlla ndongolo yàlla na ko yàlla xaaree àjjana. waaw dem na ba ci biir succès bi di ma woyal simb ba ci biir succès mi laa wax ba ci biir succès mi nekk on top. ba jour bi muy génn àdduna mu waroon ñëw sama simb gol tapé bu waroon simb ay seen boti pom artiste noonu lay def mais ñoom xaw ma dañu ñoo justice mais xaw ma dañ ñoo ñàkkal fu tax te inhibe man ñoom ñëpp laa wax ku ma ci faalewul rek faale ma la. maa gën a di ñaar fukki junni yoon bu dee sañse dàqu ñu maa sañse bu dee xam ni ñu baax gën ñu maa xam nit man Wally Seck laay àndal man kon faalewu ma dara Wally Seck laay àndal te eh man maay mag magu xolam man la bëgg loolu Sénégal gépp xam nañ ko. Sénégal yi xam nañ ko moo tax mu ànd yow ci grand théâtre bi noonu ngeen war koo diwoo war ko perloo ba tey Pape danga may joxal kàddu bi Pape Pape ma bëggoon xam simb ah li ngeen si jànkonteel yëpp ndax simb du yomb wax nga ko dugg bi dugg bi rek dafa metti famille bi opposé wu wante tamit euh, ci biir euh, ci biir carrière bi yëpp gis ngeen tamit euh, gàllankoor yi ngeen siy jànkonteel ndax tey bëgg nga sa doom topp say tànk. non xam nga jafe-jafe moom xam la Balla Gaye mbër. Mm-hmm. bëggul sa xam nga yow yaa ngi def journaliste li nga ciy daj yaa ko xam te doo ko wax bëggoo sax sa doom def ko. bu dëgg noonu la demee <coughs> lépp loo gis rek dafa am lu metti moom salaam da koo way. zingulu lu doy waar. moom dafa bëgg si moom ba bañ nekkee 2S ba ñuy joué da doon jooy ci plateau bi. caat sec caat sec dañoo ànd ak moom mbapat. Mhm. mbapat de simb abu ci bala dañoo ànd moom ay tournée Kaolack. Mhm. muy way simb ay ati at. Mhm. bëri na. buñ lay lëm fii duñ fi jógee mm. ay ndiko cuun ñëpp benn tali bii ñoom ñëpp ci lañ jaar papa parce que simbu mooy tàggat waykat mm. moo la ko fii ki la dàq way simbu moo la dàq way ci musique mm. du benn sax bokkuñ sax fii bëri na ay waykat yoo xam ne bu leen tegoon xalam rek duñu way simbu sabar kase la ngay way ñu koy joué waaw tey la mooy sa dernier message Pape Nar. waaw li may gërëm mooy na gars yi delloo si seen xel te valoriser li nga xam ne ñun ñoo ko moom li ñu moom dañ koy valoriser maanaam ñu respecté ko ba ba pare gars yi woo gaa yi ñu waxtaan gaa yi ngi booloo de sama sëmmkat yi ñu ngi booloo te ñu ngi waaj. du doy te incha allah rabi. gouvernement bi moo war a def li war a def. ñun nag ñu ngi ci tànk yi ñu ngi dox affaire yi ñii ngi ni fee ñii ngi fii njaay ngi ci yoon ki ñu ngi ci yoon bu dañuy daje waaw di gërëm nag ñu nekk Europe ñëpp xam ne ñu ngi ko fay def ay samay ñoom doomu nday ñëpp fa ñoom paalaay ngi fa ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk ay ma xamal la lu gën a garaaw dafa am ay tëggkat yoo xam ne ñu ngi Europe gaynde day soxla simbkat du ko gis tëggkatu sabar yi ñooy mujj dem di jënd ay déguisement di simb foofu barke Serigne Babacar te incha allah rabbi ñun moom ñu ngi si ginnaaw Ndiaye waaw fu mu baatara ñu kopp xam nañ li ñu mën ta te ñun ñu koy teg fi yoon <coughs> grand théâtre bi suñ ko joxee dañ koy diw ba mu ko yàggul rek mm-hmm. dañ koy diwaat rek dañ su mbaka lu mën a drainer si ful nit mënu koo drainer mm-hmm. xoola vacances rek nit ñu jógee Europe ñëw seen doom yi ñu ne simba am na lu gëlaal lañ leen wax de barki Serigne Babacar Si yàlla nañu yàlla defal jàmm te ngeen respecté simbkat yi ay doomu aadama lañ yor seeni jabar yor seeni doom bëgg li ñuy def sàcc ñu toxu ñu gaan ñu làmb moo ëpp violence fuuf ak fu bëli ñaata nit ñoo siy dee te teew duñ ko ba sim li nga ciy dégg lu raar la lu raar pensa nga dem ci benn zone sax bëgg fa simb di nga simba ah. ñun bu ñu doon laaj ay milliards dañ koy joxe mais dañ fay làng de mais dafa war a gën a mën a yomb ñu leen a may autorisation peut-être favoriser leen ñuy fay ñuy fay impôt di fay lépp mën nañ ko parce que gars yi fi bëgg ko nañ ñu dooleel ñëpp respecté ñu te xam ni fii lañ jëm gars yi da man fu mu ne. barke Serigne Babacar si ñu ngi ci ginnaawam te te fu mu baag rek ñu ko ko. macha allah am na solo loolu ñu bàyyi ki nga xamante ni mooy Ndiaye Ramb moom mu joxe mot de la fin moom tamit. ok di gërëm Sénégal yi encore une fois. parce que gis nañ gis na gis na gis nañ message yi gis nañ jàppale yi am na ñoo xamante ni man leen gën a bëgg Youssou Ndour am na ñoo xam man leen gën a bëgg Wally Seck c'est vrai am na ñoo xamante ni Wally Seck bu woote woon fee yu Ndour di woote fee man ma woote fee ci man la ñuy ñëw ñu ngi leen gërëm yéen ñëpp. Hmm? kon ñoo ko déggandoo ah di leen jaajëfal bu baax ci teewlu bi di remercier ah, suñu papa euh, Sadio Ndiaye ah, nga xamante ni moom tamit def na wa bay na waaram ci simb bi di leen jox dig daje très bientôt pour yeneen numéro incha allah ci biir émission Tassé. Cheikh Anta Ndiaye. à suivre di ngeen ci xam dara incha allah rabbi